Thank you. jërëjëf kaay Arafas nga ne kii day xaar. barki Serigne Babacar Si day xaar. billaahi wallaahi. xam nga kii. jox ko mu wax. jox ko mu wax. waxal yaa war a wax. maa ngi sant yàlla bu baax. di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. maa ngi nuyu waa Cambérène waa Parcelles di nuyu mboor mboor yi ñëpp di wax ñu ñëw jàpp ci bis bi. arobas yaa ngi waat loo xamul wax ji di nga ko defaraat de. nga ko defaraat ba mu jekk. waatal rek ba ba tey yaa ngi waat. Lamine li ma wax duma ci defaraat dara. te noonu lay demee. taxawal kii du ñaar dërëm taxaw ma fenn fii laay taxaw. kii dafa am lu ñu boole. wax ko. kii. wax ko ñàkk moo ñu boole. Hmm. yow man mooy bëri ñoo xam ne sama. sama tey jii cameraman yow yaay kan yow xam nga mbokk xam nañ ki ngay bëreel. kan moo la yow. lébu yi kenn xamul la yow. te ñooñu laay liggéeyal. lébu yi yow kan moo la xam loo fi def yow. dama nga laajte mu ne. dama nga laajte ko xanaa newuma Sénégal nga nekk Sénégal loo def ci làmb yow lu ma deful. waxu li nga eh, waxu li nga def. loo def ma def doo ko def. ma jël doo ko jël. loo jël. man maa jël drapeau chef de l'État. dipp la fa ñaari yoon. foo ko man foo ko jëlee. yow bul soxor geen mais eh tapé leen 2017 100 kilos drapeau chef de l'État ban mbër moo ko jël. région de Tamba kan moo ko jël. tapé leen ko. champion yëpp naa leen yow loo fi jël waxal loo fi jël di talaxu rek di wax. topp média yi di wax rek ca kii mën naa ko jàngal bëre. billaahi mën naa ko jàngal bëre kii daa xam dara seen mbër mi tàngay daa baax. tollu baay di wax rek ma bàyyi la wax ji tey dañuy wax le huit ñu jëf fii ma jàppale duma la daan kii du ñadd du dara du dara bu xeexee ma duma ko bu bëree ma jàngal ko bëri ñun dañuy yeewu sangu géej di bëre ba midi ñu dañ géej teer ñëwaat di bëre ba ngoon ñoo ko ëpp sañ-sañ fuuf tapet la dina rëccu wax ji kii dafa baax dama yaakaar ne kii dafa dafa kontaan trop billaay wallaay wa taala Lamine barke alaaji Fallou kii su ma ko jàppee day woyal doo dara yow lan nga mën ci man yow dama la fiy jëlee ana doole ji yow di soo doole doole man bu ma nee kirtim nga xam ne doo ñaar dërëm doole nekkul ci ay lex man aw may lex déggoo ma de xool ma ah lan mooy lex xool ma yow yaa ma ko doole su meeku leen kay su meeku su meekul su meekul yow su meekul Lamine kii su meekul yow kay form fit nga sumeekul waaw waaw sumeekul dese soudainement kese waaw su suñu bëri waaw sumeekul ba suur jàpp ko daan. àdduna mënoo ñu wax sumeekul muy sumeekul. jërul mu yaakaar daa wóolu boppam jërul mu yaakaar dina sumeekul. nga yaakaar du làmb. làmb da ngay entraîné de man ko di ko def ñëw fii bëre man ay mystique ak ay nangam loolu daanul arrêté dama am ay mbokk de juróom-ñaari penc lébu yëpp maa ngi leen di woo. tey di nga xam ne làmb jaay wax moo yow kii dafa neex kii billaay wallaahu taala làmb jaay Fall Fall Ndiaye làmb dafa yàgg kii waroon naa ko libéré bu yàgg kii wax rek lay def kii kii dama jàppoon ni sax ba ma ko seetaanee keroog interview moo fan ma dama ne kii du mbër ma jàkkaarloo keroog ma jaay di talaxuma di la tontu nga ne wax man ma jaay lu dex nga lekk di wax nga ne man ay gat moo wax man maa wax man wala wi jërëjëf kontaan naa ci yow aywa alors alors kay taxaw nii. Serigne Fallou Mbacké doo ma daan barki Serigne Babacar ma daan yow. te le huit dinaa la jàngal bëre dinaa la daan. yow daa xam dara ñaata yoon nga ñëw sama tund booyu ndaw ñoo lay fooye foofu du ma fa takk ngemb man. jërëjëf rendez-vous bi la wut de incha allah rabi fii ci àll woote. da nga dem ñu lay ñu lay ñu lay pompé. dañ lay pompé pour nga wax koy def. depuis keroog yi ñu la waxal bu baax. xam naa da dem mu gën a renforcer wax ji pour nga mën a wax. ma la maa ngi jërëjëf Mbour yëpp. waaw waaw di pour ma wax ko benn affaire kii moom man la buur tiki tiki la dajal tiki tiki man dara du ma si man Lamine man du ma taxawaalu sax guddi bu may dox du ma sax gestu wax naa ko affaire du ci ay yaram de man daa loo xam ne barki Serigne Babacar si dañuy dem ci loo xam ne kii boo ko fa yóbbu woon bu ñëwee ñu defar ko. rendez la da woote maa ngi woo ba waa Mbawar yëpp di woo waa parcelle di woo Bawol Bawol di wax père ba yaag Mansour ba ñëw leen ngeen jënd billet yi ñoo war a mobiliser dafa bari de Mbawar Mbawar dañoo waaj te maa leen ko ameel billaay walaay lamin waaj a métti rek ak ay wax mais waaj yi nii bu ma nee kiir nim ci kawam barki alquran dina mel ni courant ko jàpp kii du sax maag moom wax bee bi nekk nii yow man arobas mii bu may bëreeg moom nii sax dama jël nii pour bëgg dañ may laaj kenn dégg nga maa nag di woo sama waa équipe waa Dóor Dóoraat sens yow laa jël li ko damal toog yow laa may sens combat bi mi bari ñi ngay bëri waxuma yow géej Dakar géej moo tax ma jël kii waaye nga sotta dara lu wotal naa la jàpp duma la daan la kaay wotal kaa kaay la taxaw di di talaxu waaw di woo sama mbokk yëpp waaw di nuyu presse bi kii mu ngi may taxa rajaxe sax maa ngi gërëm di nuyu Jalaaw ak gars yi ma àndal waaw di nuyu suñ promoteur bi di nuyu sponsor yi waa Carax ak gars di nuyu sponsor yëpp di gërëm ñëpp ñu ñëw jàpp ci promoteur yi di nuyu presse bi waaw di nuyu sama grand frère muy Jalaaw di gërëm sama gars yi ma àndal nii di leen nuyu baax a baax a baax di woo sama mbokku lébu yëpp fukki penc yeeg ñaar yëpp maa ngi leen di woo le 8 janvier lii ka dale Ngor Wakaam Yoof ba Joal lépp loo xam ne ni géej mu ngi fay taxawaalu ñu ngi leen di woo ñu ñëw jàpp ci la 8 ñu jàpp affaire bii defal ko bagage te wan ko nekk du ñaat dërëm kii barki rasulaay mbaale la gën a diis fuuf te day jox guddi guddi dañ kaa yëpp si gaal bi kii du dara le huit ko jàpp duma ko daan ko di woo sama mafia bi waa Belli waa Zanzala bi waaw groupe yooyu noonu maa ngi leen di woo di woo waa tamit waa Mengo waa Manko gaa yooyu yëpp bul daw doo ñëw fii taxaw wax doo ngay tappe doo ñaat dërëm maa gërëm ñëpp waaw di lay sant bu baax di la gërëm waaw di allo di woo monsieur le mu ñëw jënd billet yi di woo suñu maire mu ñëw jënd billet yi. maire takk ma ñu leen ku ma jawar ma nga ku ci